gis naa ni ma taxawoo si combat bu baax a baax yéene bi egsi na maa ngi koy sant bu baax samay mag mun naa ne la samay mag xam nga dañ ma yéene muy Moussa Mboub Wextaan Pambaay ama seen junior xam nga ay ñoom mbaytin xam nga waa école bi bu ma limee damay juum ay ñoom safara ñoom njambaan ñëpp dañ ma yéene accompagné ma xam nga sa contact dañ ma yéene yéene boo xam ne man damay dem sax xam ne ñii dañ ma yéene ñooñu aw ma seen fay dama bëre waalee loolu bëriwaale sama soxna tamit di ñaanal géejawaay ñu si doon bëri yëpp bu ñu amaatee combat yàlla leen may la ndam ndax dama bëriwaale loolu tamit ñoo ma njëkk a bëre ñeent ñi si jot a bëri yëpp yàlla def tey ji amuñu ndam bëriwaale loolu ndax tey ji mun naa ne la yàlla dafa ma fay sama xol nga combat bi dafa nekk combat boo xam ne sama buntu làmb la te waruma koon ñaax daj naa lu nekk si combat bi mais lépp dama ko maîtriser ne ndam rek ndam rek laay am mais tey du ma ñàkk moo tax ma. Euh, du ma jaay sama combat ndax damay bëri sama soxna ma takk soxna lu nekk laa dégg lu nekk dégg naa ko billaahi wallaahi taalaahi xanaa day bàyyi bëre xanaa lu nekk dégg naa ko su ma ñëwee entraînement nag ñi nga xam ne ñooy samay grand frère. ñooñu xam nañ ko war a bàyyi bëre ak kudul bàyyi bëre ndax ay ñoom pambaay ay ñoom ama seen junior ñëpp a ngi nii damay contact xam nga ñu may conseil conseil bu rafet ma xam ne comme que man ñii waxuñu ma loolu rek man dinaa nekk mbër ñi si mbedd bi merewu ma merewu ma leen amaana ñuy wax loolu samay supporter lañ lu nekk dégg naa ko bi ma takkee soxna sama soxna jàppale ma chaque heure moo naan ma heure bi jot na jugal dem entraînement bu may nelaw mu yee na ma jugal dem entraînement mu jàppale ma bu baax a baax su ma demee entraînement ba ñëw fekk mu toggal ma damay ñëw lekk ba suur ak samay xarit ñu tëdd nelaw comprendre nga dama bërewaale loolu ak samay yaay bi nga xam ne day sonn si man di dal du nekk su ma gisee muy dem di di lijjanti sax damay am lu ma metti billaahi wallaahi taalaay euh, ñu gis ba ngay dem waajal bi ñu gis tey école waaw kon li ma la wax ñii aw seen fay ndax boo déggee aw ma seen fay ñii samay mag lañ nekk samay mag yu baax yéene ma xam nga nit yéene la ba nga xam ne kii dalay la yéene ñii dañ maa yéene man aw ma seen fay lenn rek laay wax chaque jour ku ma siy ñaanal duma la wax dara dama naan yàlla la yàlla fay sa xol ñoom ñëpp damay ñaan yàlla mburu école bi ñëpp yàlla fay leen seen xol ku si am komba yàlla may la ndam man loolu rek laa leen di ñaanal ndax ñii bu ma leen gisee esaat ñi ama seen di ma xam nga may itiré ak moom pambaay noonu xam nga dem nañ ba benn benn station ñoom ñu ngi may laaj mbër lan la xanaa lañ laa jàpp si gàllaaj affaire yooyu ma ne leen noo maa ngi nice damaa ànd ak sama conscience tranquille rek mais boobu gis naa suñu mbëru géejawaay xam nga ñu bëre ñàkk ma ne man instant bi dara waruma lu dul ndam ma ànd sama xel concentré taw bëgg a xam lan laay bëree xam looloo waral combat bi yaa ak ki may bëreel moo ma jiitu si làmb fop ba muy bëre bëreew ma am ñu bëreel suñu école am ku mu bëreel fii tamit xam ay nit ku nekk day jóge fee ñëw naa ma ki ngay bëreel daa mën a bëre daa mën a xeex kon loolu noonu c'est forcé ma bëre ko sóoraale wu ma ko nag su ma ko sóoraale woon boo xoolee làmb ji moom bëriwul man maay bëre maay cherché amaana nag dóor na ma mais làmb ak loolu moo ànd xam nga ku bañ a jël ku rek bul bëre waaw lépp damay sant yàlla bu baax rek xam ne ndam laa waroon am te dama koy am te yàlla may na ma ko yàlla suturaal na ma ko koy sant bu baax a baax a baax sant ñi ma ñaanal tamit du ma tudd seen tur mais ñi ma ñaanal maa ngi leen sant bu baax a baax a baax. waaw man waa axlu làmb xam nañ ndax bi mooy sama ñaata spécial neuvième spécial combat bi boo xoolee waruma bëre sax. spécial waruma bëre huitième combat ndax promoteur bi wo après ne ma soo gisee ma la nga bëre huitième combat dama njëkk taxawal combat bi te bëgguma ta seen yaakaar ñi doon beure spécial ma leen raw ñuma ma bëreel beure xaj ñu sax bay beure ak ñooñu ndax ñima ma daan ñoom daanuñu ñooñu essay bi dama dafa jot pour ma wara beure grand combat soxlaw ma lu noy nañ ma jox sama morom ma beure ak ñoom man champion la bëgg nekk soxlaw ma lu noy ci lamb bëgguma sax ñu may jox ay paayeeg affaire yooyu noonu nañ ma jox samay morom ma wane xam nga ma wane li nga xam ne moom laa mu boo xoolee combat bi li tax mu xaw a jiire sax ki ma doon bëre lese la te bëgguma juum ndax waruma daanu si combat bi bëgguma juum moo tax chaque jour may jël sama temps ku ma encaissé yëpp maa ngi gis li may encaissé mais lépp dama ànd ak sama xel rek moo tax ma encaissé ko mais su ma neexoon damay ñëw parax paraxee ko mais du def loolu combat bi moo ma jaral moo tax Mhm. sa combat ba entraînement man mhm. euh, booy yi ndaw yi ndaw yëpp dañ ñu bëgg soo déparé école ba xale yi waaw xale yi aw ma seen fay ndax boo déggee ma ne la xale yi aw ma seen fay man boo ma fekkee si koñ bi sax da nga naan Cheikh daa ñaax fay ndax xale yi laay nekk di foowal xam ñoom laay nekk di foowal nga dégg man xale xale yi daal awma seen fay barki Seydina Mohamed dañuy jooy lu nekk dañ koy def da gis benn booy sax jóge fee jox san cent franc ne Cheikh ama may la su ma xoolee loolu damay bugg a jooy damay dégg xam nga ñi ma jàppale tamit suñu école mbër yi ñëpp ma jàppale kon ñi ma la wax papa Mor Faram seetaanu ma sama papa la xam seetaanu ma père Mor Faram seetaanu ma billaahi seetaanu ma benn yoon sama papa Bayri Sey aw ma fayam jàppale na ma si combat bu baax a baax di nuyu soxnaam yëpp xam nga di ko jaarale si soxna tata yaa Marème di ko jaarale foofu soxnaam yëpp maa ngi leen nuyu. Ana Gomis jàppale na ma si combat bi bu baax a baax a baax waa Massé Ndiarème seen mill f 1000F yi ak waa koñ bi seen mill f 1000F yi ma doon jox yëpp gis naa ko parce que Seydina Mohamed aw ma seen fay. sama yaay aw ma fayam sama xaritu yaay aw ma seen fay sama xaritu yaay toog fii aw ma seen fay billaahi ñoom samay yaay lañ sama maam tamit aw fayam. billahi wallahi talaahi ndax mok sama yaay mok sama yaay ñoma yar ba ma toll ni ñom la xam sama mam ak sama yaay awma sen fay damay ñaan yalla may leen guddu fan ñu fekke sama njëriñ ndax xamna ne bu nekké champion man dina nekk champion dama leen ñaanal yalla yalla may leen guddu fan sama entraîneur yi muy ngeelum père sar sari père xam nga fàttewu ma leen dañ maa jàppale barki Seydina Mohamed damay nelaw sax sonn su ma ñëwee ñu ne ma da waroon teel a ñëw ma xam ne ñii dañoo bëgg ma daan suñu président moom aw ma fayam kooku mënu maa wax si moom ndax daf ma yéene yéene yéene ba nga xam ne damay toog sax yenn saa yi naan non du ma xam lan laay wax daal xam sama papa Tafa Ndiaye tamit aw ma fayam keroog am na benn loo xam ne moom xam na li may wax dëgëroon na ma yee ko ay 3 heures du matin mu jàppale ma ay ñoom ceeraa xam nga. aw ma seen fay waa koñ bi ñëpp aw ma seen fay barki Seydina Mohamed booyu ndaw yi damay ñëwaat si loolu aw seen fay sama soxna tamit billaahi wallaahi taalaahi aw ma fayam awma ma fayam sama jabar aw ma fayam maa ngi gis ni may jàppale bu baax di ma muñal barki Seydina Mohamed xoolul lu ma yor ak yoruma dara mais xoolul loolu xam naa ne fekkoon am-am du dugg si man dama koy sant bu baax ay xaritam aw ma seen fay dañ may jàppale sama rakk tamit maman Ndiaye ak Aana. xaw seen fay barki Seydina Mohamed dañuy yëkkati seen alal di ma ko jox damay sax ruus barki Seydina Mohamed xaw seen fay billaahi wallaahi xaritu mama yi xaritu aana yi maa leen sant bu baax jëkkëru aana fàttewu ma ko Ousseynou muy sama goro jàppale na ma si combat bi bu baax a baax a baax barki alxuraanu karim jàppale na ma bu baax a baax dama koy sant di sant seen waa kër ñëpp maa leen di sant sama gars yi nii xaw seen fay booy bi elaa aw ma fayam depuis mbapat depuis booy ñooy ànd ba léegi billaay walaay taala lu nekk dégg na ko taxul mu ne seex rek yaa may dégg kii aw ma fayam booy bi sama booy la moom it mun naa ne la maa moom temps kermesse la damay ñëw kermesse su bëree si poids yu ndaw yi may bëree si poids yu mag yi xam nga depuis boobu ba léegi dafa ma bëgg te yàlla tax moom it ma fayam yaayam maa ngi koy sant ak magam góoti mi ma fayam ndax maa moom mun naa ne la moog wextan ñoo ma dugal si làmb ñoom ñaar boobu maa ngi liggéey plombier ñom ñaara ma duggal ci lamb amay dégg suma démé bay bëre ki la ak wextan ak Eumeu seen junior mi nga xamné fu mu doon dem ci lamb tamit damay and ak mom ñom pambaay jangal ma bëre awma seen fay baata awma fayam baata awma fayam barki Seydina muhammad baata awma fayam billahi wallahi ta'ala dama koy ñaanal yalla may yalla may ko guddu fan ñaan na yalla man bala am ci lamb sax ñom ñu am sama xarit yépp may ñaan yalla man bala am ñom ñu am bamay defal yaayam awma fayam mère Sonko ñom yasin ñom ndey awma sen fay fofu sama kër la barki seydina muhammad sama tata gedda sama yaay ju baax la momit awma fayam damay dégg sama yaay muy sama goro mer yi la awma fayam sama goro bu gor tamit awma fayam damay dégg combat bi ñi si japp ñoo bëri wa fan ok wa sam ñom ñëpp dañ jappalé wa ma sen njaareem wa karaf wa pak baye musa wa pak baye wa wa karaf wa essence touré waa ko ñu tàkk-tàkk yaa maari aw ma fayam doomam daf may jàppale Modou Guissé moom it awma fayam togg yi rafet na añ neex na Modou Guissé tamit aw fayam sama gars yi daal su ma limee mën naa ne may juum mais na ma ñëpp comprendre aw ma seen fay gis naa niñ ma taxawoo xam mën naa ne la bu ma wartoon am ndam sax ñoom ñooy tax ma am ndaw ndax dañoo sonn sama nijaay yi ñoom Papis aw ma seen fay ak Amet ak sama papa Pam Ndiaye jooyu ma papa sama papa Pam Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax barki Seydina Mohamed démb ñëw na si guddi gi jox ma xaalis bu bëri otoom fu ma jëm moo may yóbbu sama papa Moussa Ndiaye tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax super jamono aw ma fayam xaalis bu bëri la ma yónnee démb laa dem jëli ji xaalisam xaalis bi kër ga seen kër aw ma fayam chaque combat daf may jàppale sama yaayu toog fii yëpp fu ma limul rek comprendre ma mais sama yaayu toog fii yëpp maa leen sant di leen gërëm di ko jiitalee staan gedda ñoom ñëpp maa leen di sant leen gërëm aw ma seen fay gis naa seen yéene si man damay ñaan yàlla nag yàlla may leen gudd fan encore une fois tamit mbër yi nii billaahi aw ma seen fay barki Seydina Mohamed ndax damaa xam li ma yéene xam nga nit lu ñu naan da dem estaat sax di bëri xam ku la yéene ku yéenewul mais ñii dañ maa yéene ba ma xam ne dañ maa yéene barki Seydina Mohamed ni ñuy waxee ak man laa xam ne dañ ma yéene kon ñii aw ma seen fay te dañuy jël seen xaalis tamit di ma ko jox kon ñii aw ma seen fay ñu ñoom Pambaay Eumeu Sène Junior mu Moussa Mboup Mbaye Tine ñoom ñëpp dañuy jël seen xaalis yi ma ko jox barki Seydina Mohamed kon aw ma seen fay dama leen di ñaanal ñoom it li ñuy ut si làmb yàlla may leen ko mën na ñëw topp seen ginnaaw ndax man xale laa rek te ñoom ñoo ma jàngal lu ma mën si làmb rek ñoom ñoo ko def si man. waaw di sant yàlla bu baax a baax rek xam nga di sant yàlla bu baax maire yi doon togg aw ma seen fay waa koñ bi aw seen fay gars yi ma may seen xaalis ñëpp ñu ma jàppale si combat aw ma seen fay géejawaay képp ku dëkk géejawaay maa lay sant di la gërëm di ñaanal mbëru gi nga xam ne dañoo am combat dëkk géejawaay muy ñoom Youssou muy ñoom Gàkko ñoom Dundu ñoom Fils de Balla Papa Boy Djiné limee rek mën naa jum mbër yi dëkk géejawaay am combat ñëpp xam nga maa leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla may leen dam xam ak site bi nga xam ne tey jii moom moo jël Guédiawaye FM ñoom it aw ma seen fay waaw muy bekaay yow aw sa fay booy yu ndaw yi aw ma seen fay booy ndaw yi aw seen fay may ñaan yàlla rek yàlla moo ñu gudd fan ñoom ñëpp ñu fekkee suñu njëriñ mu neexee yàlla.